Eh, maa ngi ni fay maa ngi ni fay. Eh, sant yàlla. jël si yonent bi salaam. leen sant samay waajur. comme di sant sama sëñ sëñ Moussa Nawel ñaan sama papa yàlla na ko yàlla xare ajana sama yaay yàlla yàlla guddal ay fanam. Zoss mooy eh, benn benn mbër xamante ne from donc man maa ngi juddoo Pikine yoroo pa yoroo géej waaye màggee parcelle donc euh, di ñafe sama life nekk benn self made may boo xamante ne je suis parti de rien du tout mooy li ma chaque jour naan am star from the bottom caana bi tap on est parti de rien du tout pour et au sommet I come from nothing je viens de rien du tout donc mooy ay mots yu may répéter souvent en anglais pour ñu ñu di ci bàyyi xel. c'est parce que bu ñuy wax aussi euh, am na ñoo xamante ne tey ñu ngi bëgg a dañuy bëgg seetaan ay interview yoom c'est international dañuy soxla quelques mois en français anglais mais olof moom c'est pour nous voilà donc Zoss mooy benn booy rek comme li ma ko waxee boo ñafe laay fam vraiment nekk di ay courage pour dem quoi na mu joué sama mooy euh, mooy comme la waxee rek commencer zéro pour yéeg ci kaw euh, j'ai fait pas mal de combats donc euh, euh, am naa ci ay am naa fi ay mais euh, su ma yeggul au am na niveau bu ma tey suñu borom na foofu kon maa ngi ci sant yàlla bu baax no non loolu ñun ñoo comprendre loolu ça n'a rien à voir ça n'a rien ñun bu ñuy nekk Rock Énergie boobu Modou Lo ak Garga ay xale lañ bokkuñu woon sax si guerre boobu noonu donc. sama gën ak énergie li ko indi woon mooy dama amoon benn combat ma ne nañ déplacer équipe bi pour dem différents secteurs pour ñu bañ a canaliser équipe bi fenn parce que sinon mën nañ la piéger ci ay truc musique la ñoom ñu bañ affaire yi loolu moom a génne woon ci équipe bi mais franchement boobu fekk na Modou mi nekkoon xale loolu du du du woon du moom sax vraiment moom sama waay la sama boy la sama nit la ay moroom lañ sax lañ <laughs> ama rakk la mais vraiment mooy loolu daal ah peut être peut être mën nañ ma atteindre mystiquement mais décision bi aussi euh, bi ma jël pour bàyyi bëre sama ndigalu sëriñ laa si am mooy sëñ Moussa Nawel donc euh, kilifa yi moom bu ñu waxee rek comme ñoom ñoo am vision à long terme donc tu naa qu'à suivre que respecter seeni paroles donc moo war a sama bàyyi bëre peut être nekk aussi atteindre mystiquement on sait jamais mais euh, décision bi bu ñu ma ko waxee aussi dama ci fier nekk loo xamante ne. wax na ma ko un an nag avant xam nga pour wax ma may xaw a mel ni ku ko déggul waaw boobu maa ngi hésité xam nga rek nga xamante ne nga ko tàmm am passion wu moo nekkoon sama passe temps donc même mënoo tëb tëb ñu wax la ko rek nga bàyyi comprendre nga xëy na yow xam nga li ma la wax bu baax déjà am na yoo xamante ni nii nii sax gëmuñ ne dama bàyyi ñii ñi ngi naan day sóob bu ko fay xaalis mi dugaat bàyyi naa. sax soxlaawu ma sax ku ma ci fay xaalis xalaatu ma sax takkaat ngeen ma ko ci sant di ko si gërëm bu baax xam naa loolu moo gën.